yàlla mën la dimbali ma jàngal ko métier maa doon patron de stage am si man la jànge profession avocat waaye xaasim dafa nekk sama biir xol rakk ju mat rakk la ba pare nag dafa xarañoon ku xarañoon la ku xarañoon la ku mënoon dimbalee la ku xamoon droit la ku mënoon làkk tubaab euh, suy làkk sa xol day sedd mu ñëwee sama cabinet avocat rek dama ko jox cër yu kawe dem na ba mujj nekk cabinet ba ma doon secretaire général loolu yëpp wax dëgg yàlla euh, day wane rek fi ma ko teg waaye nag moom dama jël tax ma si xolam jox ma cër boo xam ni ñëpp a xam ni ku wax bi ni maa ko jàngal métier ku wax ma ni lu xam si man la ko xamee daf may wax ni ma yaay sama model yaay sama royukaay tey ku gis mbooloo mi rek xam ni moom wax dëgg yàlla cëram feeñ na bu baax a baax fii Touba ñépp ñëw tey. Xaasim Xaasim mi ngi ñëw en quatre vingt la nekk si man waaw quatre la nekk ak man waaw ñu ànd boo ba tey teqal ko nu ba pare papam dégg ma ko

et un formateur. Euh, c'était un homme véridique. C'était un homme véridique, Moi et Le lu nekk sa xolam daf koy génn il ne triche pas Tay si la meree daf lay wax li ak li ak li ka donc en plus c'était un homme de droit C'est un homme de droit parce que l'un son cabinet fait partie l'un des 10 meilleurs cabinets du Sénégal waaw wax dëgg yàlla sama cousin la woon sama frère la woon sama xarit la woon yi loolu wax dëgg yàlla. baax la lu bëgg Serigne Touba la taalibe bi xam la moom taalibe bi pur et diir man xam la xam naa ko ci moom wax dëgg yàlla bari na li ñu daan seex dëgg yàlla ci wàllu liggéey am ñu ma koy booleel muy deflante a defal nit man boog lu mu mas a defal lu ma ko mas a boole kenn def yàlla moo tax muy def ak ñun taw Serigne Touba la lay wax fekk Serigne Touba daal laa yaakaar la lay wax ak lu mën a def wax sunu xarit sunu doomu baay maître Khassimou Touré doon jàmbaar nag yoo xam ne avocat Serigne Touba la woon am na nag moom xalaaxa bu rëy ndax bokk gi ak xarit gi ak bokk luñ doon liggéey dafa nekkoon nag bañkat ci métier mi nekkoon. loo taxoon mu dem ci moom mu nekk sunu avocat di ñuy jàppale ci yu bëree bëree bëri fu ñu ko mës a soxla muy guddi muy bëccëg day bàyyi lam daan def ñëw wuy sinu suñu liggéey jàppandal ci lu bëree bëree bëree bëri am na yoon um nu teg woo xam ni mënu woon a ñàkk te bañ ci jaaree gis nañ njëriñ li kon talib sëñ Tuubaa ngi woon nii mbokk ngi woon nii jullit ngi woon nii faatu nag waaye faatuwut ndax jëfam dafiy des ba faaw ndax fu ñu tuddee liggéey bi mel nii te mooy liggéey bi ëpp solo ci yoonu murit alal ji bari na kër yi bari na oto yi bari na waaye loolu ñurul woon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa li ko ñoroon mooy defar nit ba jub doonub taalibe doonub jullit moytandiku yi ñuy tere nga xam ne doo ci jëfandikoo lan doo wax doo tooñ sa morom doo tooñ sa mbokkum jullit lool nag mooy liggéey Sëñ Tuubaa bi gën ñor mbay nag dañ kii nag euh, xaasimu dañ koy jàppale. xam ne ab julit la beneen bi ci topp xam ne taal bi Serigne tubaala bëgg Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba it addunaam yëpp Serigne Touba ko jox tey jii boo ñëwee ci tubaa kër gi nga nekk sa gannaaw ak gi ngay jàkkaarloo yëpp këram la kon moom lu mos a am rek Serigne Touba la ko ko jox. bi demee ba nga xam ne tawet ji gañe na ko tamit dafa wax ne nañ ma yóbbu Touba ma toog fa ba keroog may fekk Serigne Touba maanaam kaddu yu mujj wax rek. soxnam dafa toogoon ba yàgg mu ne ko sëñ Touba day ngi ni gog kat lu mu jox kon xam nga koku liggey bu liggey seigne Touba gis nañ ne lu mu nangula la di sante bu baax tamit seigne Moussa Nawel mi nga xam moy mooy taxaw gi ngi ko taxaw ak njabot seigne Touba gep ndax tay bo ñewé fam doon fañ ko doon denc ba baaka seigne Touba yëpp nga fa won suñu yaakar nak am ci lool nak ci ci njabot seigne Touba gi nga taxaw gi ak ñaan gi tay ñaan yalla nak lim fi tambali won nga xam lu reuy la nga xam ne avocat Cheikhul Khadim mom rek lañ ko daan woyé kon nag ñii nga xam ne ñoo nekk moom ci cabinet bi di liggéey ak moom ñi ngi ñaan yàlla liggéey boobu mu tàmbale woon ñu àggale ko di soññ bu baax ñoom maître Sakho ñi ci liggéey bi ngir lépp lu mu fi bàyyi woon bu dee téeméer ñu yóbbu ko ba ci junni ndax Serigne Touba am amul tànk gan amul tànk gannaaw ndax fan yi weesu yëpp fukki fan nangam yi yëpp ñooy nekk saa yu xëyee ñooy yendu ba ngoon ba ni demee Serigne Touba amul benn yoon boo xam ne salit na saa yu xëyee day wax ay waxam yëpp jërëjëf Serigne Touba la ba ni ba ni mu génn àdduna xool dafa xaw a tooy ci suñu wëlëri yi nga xam ne daf ñu dëddu xaasim nag euh, ñëpp la nekkaloon rawatina tarixa bi képp koo xamante ne bi amoon na yitte bu ko yëgee amul lu mu cay teg lu dul def ci la ca war ngir yàlla ba tax na ñu ngi koy ñaanalam njëggal ak suñu borom ndax àllaaxira moom jéggal rek moo fa baax yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko te wuutu njaboot gi xaasim yàlla wuutu njaboot gi ci moom. am naa fi benn bakkaan boo xam ne bii at mu jot daf ma koy abbu ndax dal teral ci ay doomu aadama rek mboolem di nekk ay avocat ay procureur ak ay siis yëpp kër gi dama koy jox chaque année mu fa la leen di dalal lu ne mu berte bu ne mu di ko fa def moom benn lañ woon ci lépp kon ñu ngi koy ñaanal ak jéggal di ñaan ci barke yonent bi barke Sëriñ Tuubaa mboolem ñi fi ñëwee yàlla jéggal leen. boo xam ne tey bis bu ma. metti la ndax maître Khassimou sama sama xarit doon sama sama sama kóllëre doon it euh, taalibe boo xam ni ak bëggam Serigne ak xedam Serigne Touba euh, man lu ma lu ma biir la te xam naa ni fonk gi ma fonkoon it ak bëgg gi ma bëggoon euh, Serigne Touba rek a tax ndax nee na ma bañ na ko ba rubrique sama euh, fi mu bind sama numéro téléphone murit bi la ci bind ndax euh, xëy na gis bu mu gis may yëngutu sëriñ bi tax mu am cofeel ci man xëcc ma ci boppam euh, doon avocat yoonu murit doon avocat sëriñ Touba bari na ay dossiers yoo xam ni ànd naa kook moom wala ma wala dénk ko ko wala ma xam ko ne ma nga ja lu jëm ci yoonu murit mu lijjandi ko Euh, plaider ko défendre ko ba ñu am ci lañ bëgg te lépp jaar ci sutura ak euh, ak ak secret kenn xamul dara ku amoon secret la waaw ku amoon ku amoon sutura la ci liggéey bi muy liggéey waaye ku Sëriñ Tuubaa jaraloon jaraloon lépp la euh, li nu naqari ci moom rek mooy mooy lii tey ndax amoon na fi place du mag tey it amoon amaloon na askan wi njëriñ amaloon na yoonu murit njariñ waye nak yalla kenn du xëccoog mom moy def liko sopp euh rafet na njort ci nak ni la ko taxoon di top ak ak ak ak ak sonu ci liggéeyu señ bi bu sub tay bee tax eh, Sëriñ Tuubaa mom mm, ku ne xam na ni ku ko ñaxal dana la añal wa kon ñi ngi ñaan yalla jotale ko ci ab liggéeyam motali yaakaaram ci lu kawé ku baax la ku nango song ci mbokk ku julité ku bëgg sëñ Touba loolu lañ xam ci moom. liggéey itam ku mën a liggéey la ku mën liggéey la ku xariñ woon tib liggéeyam la sama këram la duggee école 1968 maa ngi ngeengi new kër papaam booba lay de primaire foofu ci école école 1. liggéey itam doon na ci def lu bari loo xam ne sëñ Touba moo tax mu di ko def daa ci daaw ci laaj ñu di ko jox ak fay ak yooyu daana liggéeyal nit ba pare ñu wax ko mu ne fayu sëñ Touba laa ci bëgg ma bëgguma ci fayu gàddina waaw loolu lañ xam ci moom ku yaatu la. ku nangoo sonn ci mbokkam la li ma xam ci moom itam moom la mbokk yépp xam ci moom ku baax la ku nangoo sonn ci mbokk la ku jullite la ku doon liggéeyal yoon wi la ndax loo ko mës a wax bu dee bànneex wala naqar lim la ci njëkk a tegal mooy ci yàlla loolu baatam la woon beneen bi ci des ma xam ni ku bëgg Serigne Touba dem na koo xam na ni su màggal jotee ba màggal di dellu siwaat la koy waajal loom la jox ni la doyul billaahi wallaahi wa taala ba ci màggal gi ay millions la teg ci sama loxo ni ma demal nga jëndee ko ay teraanga pour ñu berndeel doomu aadama yi waxuma nag li muy def ci kër kilifa yi nga xam ne daf leen di yónnee ay teraanga bi ci te li koy màndargaal ngir nga xam ne bëggam Serigne Touba taxoon na si Abdou Fatah moom Cheikh moom Cheikh Mamadou bu saa bu ñu nee màggal suba la dana bàyyi yitteem yëpp ñëw may ngan maître Khassim ku mel noonu nag su ko réew mi ñàkkee nga xam ne gis ngeen ci fi mu taxaw ndax kenn ku ne xam ne ni maître avocat la perchoir bi kenn ku ne xàmmee na ko fa ay tey li fi ñëw ci ay kilifa ñu nga xam ne ni ci baro bi la ñu nekk wala ay magistrat yu fi ñëw te yaakaar naa kenn mënul wax nu mu toll kon maître moo toll noonu waxuma nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla boole ñoom la ko yàlla booleel jamono. ay li mu gënoon a gëm te gënoon ko bëgg soo ko nee taalibe njabootu sëñ Bàmba rek mu kontaan xam nga murit amul lu dul ndigal te ndigal li moom la sëriñ bi joxe sëriñ bi li mu wax daf ne buñ ko dencee tey na lépp yam loolu la sëriñ bi wax ci ndigal li ñu jotee ci moom daf ne buñ ko dencee tey na lépp yem te xam nga li lay woon ni bëggam sëriñ Touba maître bi mu feebaree rek dafa toogal boppam ba yàgg mu ne nañ ko yóbbu tuuba mu ñëw ci kër gi tam mi ngi woon ci jàmmam di waxtaan ak nit ñi fa tabaarakallaa ba yàlla dogal dogal bi mu agsi ci moom dañuy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla bu ko cat jiitu ci biir bàmmeelam